waaw ñaareelu pàcc bi euh, mën naa ne euh, ñoo bokk tëralinu liggéey su ma nee ñoo bokk tëralinu liggéey maanaam lañ doon def ci ci ci pàcc bu njëkk bi moom la ñuy def ci pàcc ñaareel bi xanaa ñu dolli ci wàllu tabax ay classe ak wàllu tabax ay poste de santé parce que boo nee tali wax ndox wax courant faaw nga wax jàngu xale yi faaw nga wax aussi euh, paj donc loolu moo pesant président de la république ci gis-gisam mu ne bu ñu demee ba ci première phase am ngeen résultat deuxième phase danaa leen yokkal lool te yokkal nañu ko ñu war a def lu toll ci wàllu ñetti téeméeri poste de santé commencé nañ ko ak projet banque islamique de développement bi nga xam ne financement bi fanweeri milliards la ak juróom-benn dinañ ko def aussi ci wàllu financement banque africaine de développement bi nga xam ne financement bi euh, ñeent milliards la ak aussi fonds saoudien bi nga xam ne nii euh, signé nañ ko bu yàggul début octobre dañ ko signé bi nga xam ne financement bi euh, ñaar fukki milliards ak ñett loolu yëpp boo ko mu nekk téeméeri milliards yu toftal dal donc buñ né première phase ci ga Sénégal génneen ci téeméeri milliards ak ñaar fukk ñett deuxième phase bi bailleurs yi teg nañ ci kaw bi téeméeri milliards yu top donc loolu vraiment lu ñu rafetlu la et aussi daf ñuy permettre ñun Sénégalais yi nga xam ñu ngi liggéey ci PUDC ñu gën fas jom parce que suñu réew la ñu président mo ñu jox mission bi ñu liggéeyal suñu réew pour que justement jafe-jafe yi nga xam ni nii nit ñi jànkonteel nañ ko ci all bi mo xam walu wàllu ndox la mo xam walu euh, ñàkku courant ñàkk yoon ñàkk kay ñu mën vraiment béy ci suñu war ñun pour joxe exemple pour que justement li nga xam ne ni mom la bëgg ci Sénégal mo émergence ñu mën ci ag ak jàmm. Euh, c'est un projet euh, vraiment très innovant. Le PUDC, en collaboration avec le PNUD, euh, a permis à des entreprises locales comme nous de monter leur expertise de travailler en bonne intelligence et euh, vraiment de participer au développement du pays. Donc euh, l'expérience qu'on a tirée de la phase 1 euh, a été valorisée dans la phase 2. Donc le PIDC a capitalisé, nous aussi on a capitalisé et c'est dans cette deuxième phase ce qu'on est en train de mettre en œuvre. Vraiment, c'est un projet très, très, très, très innovant et qui a permis à des entreprises locales comme nous de s'exprimer et puis vraiment de euh, d'en tirer profit et puis vraiment euh, de participer au développement du pays.